mbokki Sénégal mbokki amateurs yi rendez-vous bi benn la le 3 novembre ca arène nationale Jandeer production moo woote bés bu mag boole ñaari ndaanaan ñaari champion ñaari gaynde waaye ñaari bañkat jamteer yi bu kayaar xale bi nga xam ni avance am dugg na ci kër bu ne nu delloo ki ko jël nag du kenn kudul général bu Malika xale bi nga xamante ne ni def na champion d'Afrique wane boppam ci réew mi ba ñëpp ràññeeku xanaa du loolu mooy bombu nucléaire combat boobu nag ñu jël daal di koy duppee ki nga xamante ne nii mooy Ibrahima Faye Beuz mooy borom Lutte TV BP Actu affiche.com le plus jeune PDG de l'Afrique de l'Ouest waaye mbokk yi ci bés boobu Pape Pouye dina fa jàkkaarloo ak Caatu Waalo combat boobu nag la ñu jël tuddee ko monsieur Ablaye Diouf Diong waaye mbokk yi bu leen fàtte de Farouge ndaanaan bi dina fa jàkkaarloo ak Cheikh Super Jamono mi am jom lool Gorofil dina fa jàkkaarloo ak taala Gaynde mbokk yi ak yeneen combat yu doy waar yu neex ay xale yoo xamante ne ni ay ndaanaan kullu fadlin lañ kon gars yi rendez-vous baa ngi noonu le 3 novembre ca arène nationale ñu ànd ci ak Jandeer production Lamine jërë ngeen jëf mbokk internat yu mbokk amateur yi ñu ngi fii Guédiawaye ndax seen monument day waajal le 30 novembre. novembre ah. am combat MMA bu mu méttee méttee méttee méttee am adversaire bu dangereux adversaire bu mën a xeex mën a bëre ñeme tey nag comme ñoom yàgg nañ leen andi ñu ne nag dañu bëgg a takku dem Côte d'Ivoire yóbbu Lirou Diane mu dem rayante ji kenn ngi nii nekk ci doomu Guédiawaye muy Gackou 2. bu fekk ko ci saal bu fekkaale fi Lirou Diane Gakou maa ngi bu baax a baax di la ziar maa lay fay di nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu inter mbokk internet yi di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ay doomu géejewaay lañ di nuyu ñi nga xam ne direct géejewaay mooy daw seen yaram di woo ñëpp ci combat bi combat liiru bi géejewaay gi yëpp ñoo war a génn ñun ñun dañuy biis la ñuy yóbbu Côte d'Ivoire bus. Côte d'Ivoire dañuy yóbbu bus 100 pour cent géejewaay bi yëpp ay dem kii Côte d'Ivoire nekk si ginnaaw liiru. ndax liiru mooy suñu monument te monument bi du daanu. mais sérieusement nag Gackou 2 est-ce que Lirou Diane war ngeen ko mën a seetaan ak Azam mu dem def defi MMA. mais MMA am na ñoo xam ne ñoo mag Lirou. mais mais moom mos ko pratiqué loolu mooy problème non mais ñi koy ñi koy ñi koy ñi koy def nii ñëpp pratiqué wuñ ko ay mbër lañ ay mbëru làmb lañ. dañuy dem entraîner rek dem para dem dem dem affaire góor la Lamine. ay xale lañ ñooñu. esport de combat ñooñu tey Lamine. tey li nga mën a def ci ñoom mënoo ko def ci Lirou Diane. Lamine esport de combat yëpp affaire góor la. sport de combat yëpp ñeme la rek nekk góor yàlla am jom te lépp ngi si liiru en tout cas ñun ñëpp ñoo ngi si ginnaawam dañuy dem Côte d'Ivoire bis la jël mbër gi waay yëpp dañuy dem Côte d'Ivoire allah nekk si ginnaawam te waa ji waa ji waa ji bu xamoon lañ koy waajal. mais lañ lan ngeen mën a waajal waajal koo xamante ne tey. def na 29 combats. xam nañ koy waajal. koo def na 29 combats ah. nga xëy benn combat la def waaw nga jox xëy jox benn liiru jaan boo xamante ni. musul def MMA. contact rek ba mu gëjee def mën na juróom-ñett <laughs> ngeen bëgg ñëw jox ko mais tamit loolu. est-ce que <laughs> nekkul yéen ku la wax liir naa daa gëj contact est-ce que yéen nekku leen pour sacrifier liir. déedéet yow ku la wax liir daa gëj contact. yii liiru du contact di yëg din di ñëw si salle bi di entraîner nga ne liiru ba mu gëjee contact yow liiru di entraîner liiru tiituwuluñ ko waaj de. te waaj waaj waaj waaj dina xam ni tubaab bi mu doon bi mu doon bi mu xeexal ak sénégalais bii dana wuute. mais sérieusement rek ndax xaalis jar na ko li mu def nii. waaw non mais sport sport nag sport xaalis moo tax ñu koy def. parce que dafa tay la bakkanam. nga ko yow kon jàppoo ni Lirou def nii tay li mu def nii tay la bakkanam. teelewul bakkanam ndax géejewaay gi yëpp ñu ngi si ginnaawam fu ñu xam dinañ fa dugg ruq koog ruq autorités yi ñu ngi woo ñëpp Aliou sàll Lat Diop di ko ñaanal mu génn si kaso bi Lat Diop. libéré la Diop. man damaa foog ne liiru yaan day seen rek. non réglé ma rek ma lim autorité yi ba pare. non non ñi nga xam ne ñu ngi si ginnaaw liiru. ñoom nee na Tall Aliou Sall ah autorité yëpp Malick Gakou sama turandoo ñëpp ngi si ginnaaw liiru autorité yi waaye mbëri yëpp ngi si ginnaaw liiru te fuñ xam dinañ fa dugg. loolu génnewu mooy première. ñun daal fu ñu xam lu ñu xam dinañ ko def. waxuñu la si gaalaay lañ ko teg mais luñ xam dinañ ko def. Mm-hmm. waaw. ok léegi yow nag lan moo war a entraînement yi. wala chaque jour yow nii lay demee sa côté. waa ñun dañuy maintenir sa jour ñoo ngi entraîné. chaque jour yaa ngi ñëw sax waaw waaw waaw. te amagoo combat ni wala wala. non non amaguma combat dañuy maintenir di xaar combat rek. waxaale bi dafa sori wala. waxaale bi waaw ñu ngi waxaale. yaa ngi waxaale nii waaw. sa diggante ak Petit Lo. waaw ñu ngi waxaale. combat bi gaa yi ko koy dox mais dafa am combat mu xëy rek dégg ñu ne sa combat ak Petit Lo taxaw na. wala da ngay bàyyi bëri ko waaw làmb la rek làmb moom làmb moom gis nañ ko fi jël ñaari avance gis nañ ko fi jël ñetti avance làmb la rek. gis naa ne ñun ñaar keroog ngeen xaw a tegante dënn fële. non non tegante wu dënn sax moom moo moom moo yaa xam ne rek fu ne dëkk na ma fa. foofu conférence de presse mi ñëw foofu di ma dëkk di wax fu ne dëkk na ma fa tiktok yi sax topp na ma mais nag bis bu bis bu ma jubóo ak promoteur ba ba ba jël avance mu xam ne am na combat. lan la yaakaar moom ah xaw ma ko xaw ma lu mu yaakaar ah. bu dee doole maa ko doole bu dee bëri maa ko dàq bëri bu dee fit maa ko ëppale. ngaa ko doon doole maa ko doole maa ko fit maa ko dàq kon boo gisee mu mu mu ñemele ni da nga naan. boo non non dafa bëgg a yéeg si kaw rek xale man maa ko raw moo tax fa fa mu jéem a yóotu pour bëreeg man xam ne dina xaw a def benn palier sax loolu loolu la rek mais lamb sax boole wuñu buñ ma fay xaalis nag. xaalis moo ñuy boole mais làmb boole wuñ de buñ ma fayee kese bi may laaj ma bëre ak moom bu ma ko fayul du ma boole wuñ defu dara ci làmb am nga yaakaar ne combat bi taxaw ah naa si am naa yaakaar ñu ma ñu fay ma kese kese bi may laaj bu ma jaral buñ ma fayee kese bu ma jaral rek ma bëre ak moom ah moom méttiwul léegi làmb moom xaar xaalis la rek buñ la fayee loola jaral lañ nga bëre waaw moom waaw champion la neexut a bëreel ndax champion la day ñëw day def li mu war a def day xeex day bëre te dina indi doole dina indi xam-xam dina indi lépp façon bëre bi làmb la façon bëre bi mu bëre ndax jaaxal na la non non man moom làmb mu kenn bu amul mbër buy bëre lu ma jaaxal ci làmb te ñun dañ ci judd quoi dañ ci yaru ba léegi bañ nekkee booy ba léegi ñooñu si tamit ñun école Baye Balla moo ñu yar biñ nekkee xale ba léegi ñun dañoo judd si bëre yaroo si màggee si ba toll nañu toll kenn mënul bëre si làmb bëre bu ñu jaaxal amul. Hmm. lan moo tax tey affaire yi nga laxas ci jaan lamb daf leen a boolewul. wala lamb boolewuñu moom laa la wax. est-ce que jàppoon non du laxas jaan du laxas jaan xam nga tey jii nii lamb bu la boolewul ak nit mu topp la di la bëre di di la dëkk. xaalis mooy tax nga bëre ak moom buñ la fayee loolu loola jaral nag nga bëre ak moom buñ la fayee loolu jaral nag nga xaar xaar yàlla. mais aussi li ma waxoon léegi jaan rek laa la wax est-ce que xaalis tey war na tax nga jël euh, combat bu. xaalis moo tax xolal xaalis mbëri combat yi fi taxaw yëpp xaalis ko taxawal benn combat jaaruwu si mën naa laa limal dix combats yoo xam benn jaaruwul. comme ban. Lac de Guiers Lac de Guiers. Ada Fass Ada kii ah? beneen bi am na beneen bëri na bu ma koy lim du jeex ay Papa Bari Bari Tafa Gueye. ay bëri na dafa bëri làmb léegi amatul loolu làmb léegi dañ lay fay loolu jaral nga bëri xaalis moo tax ñu ngi di bëri. business la bi palmarès bi léegi compteetul. Mm-hmm. ndax bu doon palmarès ñu bëri duñ bëree seen ñu ñuy bëreel. Mm-hmm. waaw. am na koo xamante ne fii la nekk géejuwaay waaye di seen mag bi Alioune Seye moom aussi mu ngi nekk ci ay. waaw Alioune Seye am am solo. waaw mais problème mu dugg. Alioune Seye ci àdduna bi yëpp problème boobu question boobu la ñu posé lan moo tax mënul am combat. lan mooy problème bi VIP ñooñu la ñooñu la war a bëreel. Alioune Seye VIP la Alioune Seye moog Modou Lo bëri nañ la Modou mooy roi des arènes Alioune Seye mbëri ñu fi coow yëpp bëri naa ñoom tey bu yàlla bu bu yoonam gaawoon kon instant yii nii roi des arènes lay nekk wala mu jël roi bi ba pare comme ni ko ñoom Balla Gaye jëlee nii ba jàll. war na mënoon na koo jël ba jàll ndax moom moo njëkk a bëri sax Balla Gaye Alioune Seye lu waaye di am si làmb war na koo am da koo mérito da koo xoslu di ko comme li muy wax rek bu doon bu doon sëriñ la sukkal na ko raafal na ko tarbiye na ko xam nga nañ ko may sansam quoi surtout promoteurs yi ñoom bàyyi Ndiaye ñoom Makan Meng promoteurs yëpp promoteurs yi fi nekk yëpp ñu ngi leen di tàllal loxo waa jàmbaar ñu leen tàllal loxo si Alioune Seye Alioune Seye dafa war a bëre combat VIP. mais bu jëlee Eumeu Sène est-ce que noosam du jeex. non mais xam nga làmb daan la ak daanu. ah moo dem miin kër gi de. làmb daan la ak daanu. Alioune Seye Alioune Seye tam amul mbër buy tax ngem si làmb ji te mënu la daan. Eumeu Sène a xam de. waaw mën na nekk mais dama ne la Alioune Seye mbër buy tax si ngem làmb ji nii nii nii ku fi tax ngem mën na laa daan ba ray la. lu dafa mën bëre am na doole mën na xeex ñeme na amul lu mbër di am te amu amul lu mbër di am si làmb fii te amu ko Alioune am na lépp. Hmm. mais làmb moo doy waar rek. ok da ngay bëre daan daan da bëre daan def ay palmarès sax def ay exploit sax te yow ñi ngay ñi daanu sax ñoo lay njëkk am combat. loolu hmm. hmm. loolu lan moo koy waral. ah mais. lobby yi wala lan. waaw lobby kii wax na ko lobby lobby da ciy am. ah parfois tamit ñu lobby da am ak ak yi ñi nga xam ne tey ci nii lobby mooy xaritoo rek tey ci da ngay gis mbër boo xam ne moom promoteur bi ay gaayen lañ am koo xam ne day li si nekk daal bëri na. li si nekk bëri na Alioune Seye moom daa toog benn ruqam rek jàpp ñàmburam. ok loolu moo tax nag. mais yow aussi est-ce que Petit Lo rek nga am comme adversaire. non bëri sama nañ. sama adversaire bëri na ci. am na adversaire yu la gën a lool yu la gën a Petit Lo. waaw waaw waaw bëri na bëri na mais ñi ñenn ñi am nañ combat xam nga tey jii nii man am na koo xam ne sax dootuma tudd turam ndax dox nañ suñu combat mu bañ jaru koy tudd nee na kii euh, nee na Balla Gaye ak Sa Thiès ñooy adversaire am Guédiawaye da nga ko koy nangu. na xaar noom dina moom at bi ñaari at yi benn combat la ci bëre. kooku kan la fu mu dëkk. Yoof la dëkk ñaari at yi benn combat la ci bëre. wala mu wala wala ñetti at yi mu bëri si benn combat. Ah, xanaa caatu yoof nga. non caatu yoof waxuma caatu yoof am na combat. caatu yoof bëri nañ sax ba pare bëri ngeen xam naa. Hmm? yoof kan moo fa dëkk ku wax loolu. non xam nga xam nga xam nga làmb. Ah, tey jii nii comme li ma la wax rek bu fekkoon ni loolu man du ma nangoo bëri Petit Lo bu fekkoon loolu la man du ma nangoo bëri ci bu laal bi mu mujjee bëri. du ma nangoo bëreeg euh, nu mu Bébé bu doon loolu du ma nangoo bëreeg euh, Pokola ñi ma bëree ni ay boy Dakar yooyu ñëpp bi may bëree ñoom bu ma neexoon bañ a bëreeg moom mais boo toogee da ngay perte. Hmm. bëre woo yow si làmb nga yaakaar si làmb ngay fayeeku ah as baa ngi dem te boo boo toogul bëre doo mbër. ku bëriwul doon na doo mbër. Hmm. turu mbër bi rek fa ne. dëgg jii nii boo boo boo boo amee opportunité ñu dox la ay combat da xool bi la si xaw a taneen rek ak bi la mën a may dara nga jël ko bëri boo gën toog toog amul njëriñ. Hmm. waaw. kontaan naa si yow. kontaan naa Lamine. doom <laughs> ah. Géej waay dana fa saf sap. jaajëf incha